débat bi kañ ngeen ko samp ak seen mouvement bi exactement lan mooy euh, du ma ni point focal am mooy mais lan mooy la raison de son existence parce que li ngeen di de depuis sànq yeneen mouvement yu koy xeex bëri nañ mm-hmm. ñu ci bëri yàgg nañ leen fee dalal léegi yéen exactement lan mooy seen intérêt principal waaw merci beaucoup d'abord si question yi mouvement bi ñu ngi ko créé décembre 2021 donc jot nañ suñu récépissé euh, daaw en 2023 euh, mouvement bi euh, dafa bëgg contribuer à bâtir un Sénégalais responsable tout court su ma ko mënee résumé ci loolu. Mm. donc dañ koy jaarale ñun ci ay volets ay domaines d' activité moom laa cité. bi ci gën a fës mooy programme zéro déchet plastique au niveau des plages. zéro nga xamante ne. au niveau des plages. exactement okay. précisément au niveau des plages. Mmh. Zéro déchet plastique au niveau des plages. Donc journée de nettoyage là et de sensibilisation. OK. Nous sommes à notre troisième édition. Mmh. Euh, te bii nii ñu ko fas yéene def aux Parcelles Assainies demain lay doon. vingt janvier à partir de. demain 20 janvier. à de 9 invité yëguñu woon ci invitation bi. non la amul problème. voilà exactement. non kay mu xoolaat mu xoolaat la mu xoolaat la. affaire yi jëmp na de. jëmp na donc RDV ñëpp rendez bi. loolu moom mën nañu ko baale. ñun sax dañuy dem jàpp ci parce que vraiment exactement non invité nañ leen honnêtement ah. invité nañ ñëpp ah, hmm. euh, de rendez devant la mairie des Parcelles Assainies d'accord ngeen ngeen ban plage ngeen di nettoyer euh, plage Parcelles Assainies bi la kii rek dañuy longer hmm. voilà léegi léegi euh, jóge nañ première édition defoon nañ ko Yoff siège bi foofu la nekk deuxième édition Cambérène Cambérène troisième hmm. li tax ñu mettre en place programme boobu noonu c' est assez simple moom mooy lan c' est parti d' un constat d' une problématique boo xam ne c' majeur c' est le plastique d' après organisation Africa Check de plus de deux cent quarante neuf mille tonnes. de hmm. plastique Sénégal chaque année. Hmm. tout à fait. waaw te mille tonnes yooyu noonu maanaam. yëpp ça se retrouve dans la nature wala sur les décharges. tout à fait majorité bi parce que lu mmh. tax li ñuy wax les UCG euh, ak SONAGED. Mmh. SA ñi nga xam ne ñoom dañoo am au niveau chaque département li ñuy wax centre intégré de valorisation des déchets. foofu ñu fay def recyclage du plastique. mënuñu absorber absorber production déchet boobu. mënuñu ko de un. Mmh. de li ñuy wax les éco organismes. maanaam c'est des privés ku ci mel ni excusez-moi de de un publicité bi mais ñoo suñu partenaire lañu Proplace Industrie ak aussi Sen Recycle ñooñu dañuy dox ci recyclage plastique ñooñu aussi mënuñu absorber quantité de déchets boobu plastique boobu. Mm-hmm. donc vu ce constat là ak aussi beneen boo xamante ne ça porte sur une loi la loi 2020 04 du 8 janvier 2020. Mm-hmm. qui lutte contre les le plastique la pollution plastique. c'est-à-dire interdit lépp luy produit plastique loi boobu dafa am ay insuffisance te véritablement gisuñu suñu bopp parce que mbuus yaa ngi traîner. ba léegi mbuus ñu ngi koy importer mbuus ñu ngi koy importer yi ñu tere woon kay mu ngi fi ba léegi. voilà lépp lu ñu tere woon ci loi bi ngi fi ba léegi du ma mën a dugg ci détail loi bi. Mm-hmm. mais dama bëgg a wax ne li ñu tere woon ci loi bi bien que c' était ambitieux loi boobu 2020 08 boobu c' était très ambitieux mais véritablement gisuñu. effectivité loi bi gisuñu efficacité loi bi loi boobu dafa waroon entrer en vigueur en juin 2020 te ba léegi ñu gis ne mbuus ñu ngi koy importer et j'en passe ci côté boobu. parce que amuñu lu ñu remplacer mbuus. c'est ça am nañu ay alternative dinaa si ñëw hmm. donc pour wax ne constat li ma lim nii yëpp ci constat moo waral ne ñun dañu ne il faut ñu indi suñu contribution contribution dañ koy jaarale ci sensibilisation ak éducation. am na ñu bëri ñu koy defar ah, ci Sénégal. Hmm. am na ay initiative de base et d'autres. initiative bi nekk ci kaw mooy UCG di liggéey ak ay partenaires tels que l'ONG ay ñu ngi def ay sensibilisation ci li ñuy wax le tri le tri sélectif. le tri sélectif mooy sa kër nga mën a ñam yi li desetu ñam yi nga tegee ko fële plastique bi nga dugal ko ci benn contenant euh, verre yi nga teg ko fële donc nga mën a trier lépp de ce fet yow di nga mën a commencer jàppale ñi nga xam ne dañuy def recyclage. jàppale aussi ñuy di ramasser ordures yi. def ci am solo trop. Hmm. voilà donc côté boobu image bi rek. voilà c'est excellent donc côté hmm. boobu noonu euh, pour le tri sélectif mooy day dugg ci sensibilisation bi nga xam ne moom lañ nar a def incha allah demain. ñun de balaa suñuy déchet balaa ñu koy sélectif balaa mu nekk kii ñu koy ñu koy tànn dina jafe ndax ñun man loolu moom ma koy dénoncer tout le temps Sénégal suñu mbalit moo loolu éducation la. suñu mbalit moo salte. jën yeeg tout. tri voilà dañuy jaxase lépp ci benn. lépp ci benn mbuus dañ koy dañ koy dañ koy def. loolu éducation ça va prendre du temps pour changement. Non, de mentalité boobu noonu nekk une réalité. billaay ci maternelle lañ ko war a commencer. Hmm. donc ñun dañu bëgg a dox maanaam ci jéego yooyu. yaa ngi koy def. te plastique dafa dangereux ñun plastique au niveau des plages lañu wax. Hmm. au niveau de la de, de la mer donc xam nañ jé jéey yi ñu ciy def. Hmm. donc espèces yi raréfaction des espèces. day permettre day tax ba ñoom du ñu mën a jur mun na leen sax asphyxier maanaam day lëmasu ci jën yeeg kii loolu la leen di mhm. rey donc yooyu yëpp c'est des problématiques looloo tax dañuy liggéey ak partenaires yëpp mhm. amuñu xaaj ak seen ñëpp la ñuy liggéey mhm. contacté nañu ay partenaires yu bari ci journée bi te journée bi aussi am nañ benn yaa def publicité nag bul yegg publicité <laughs> duggatuma ci non du ma ci dugg def nañ benn vœu boo xamante ne mooy lan mooy que dañu gis ne kër yi kër yu bëri amuñu mali poubelle réglementaire te poubelle réglementaire six mille francs lay jar. kër yu bëri amuñu foofu laa bëggoon ñëw na ñëw laa doon ba nga daaneel. donc suñu doo wax nit ñi di trie seeni i yow ñu dañoo am bac à ordure. Hmm? kër yi fii ay paan yu bënn la ñuy def. pôle Palais. ça commence à changer hmm? am na am na comme changement bi ah, oh. bi mooy lan mooy famille bu nekk mu am poubelle réglementaire quand waaw loolu mooy sunu vœu te il faut ñëpp jàpp si. si parcelle bi noonu ngeen koy commencé xanaa. wala fan ak fan waaw si parcelle bi incha allah lañ ko bëgg a commencé. mais da ngeen liggéey ak municipalité parce que la mairie de parcelle est au cœur des activités. kon jeex na donc jour J bi. ni muy demee mooy dañu joxante rendez au niveau de la mairie. la mairie moom mooy parcelle. Jamil Sané en prison. mais ñu ngi liggéey ak équipe bi équipe municipale bi celle que première adjointe au donc euh, mairie bi moom mooy premier partenaire bi. ok ñu dem rek localité bu ñu dem dañuy liggéey ak mairie bi. Mhm. ak aussi les mouvements et associations de base. donc les, par les partenaires privés a ciy jàpp. ak voilà ak l'État. l'État mhm. à travers UCG euh, Sonaged ñoo ñoo ñu jàppale ci ramassage bi. ok donc ni muy demee mooy 9h dañuy daje au niveau de la mairie. Ah, ak waaw boo fa dajee li ngeen def ngeen def ko léegi man li ma constaté mooy problème